Samb ci présentation gi Arouna Cissé ci caméra bi ak montage bi di leen nuyu yéen ñëpp di leen siyaate di leen ñaanal koorug jàmm ak salaam tey nag ni ñu ko baaxoo di waxee eh, ak ni ko baaxoo di defee koor gi ak sunu gan ñoo ngi fii nga xam te mooy Madiana euh, seq ak jataay bu am solo ki nga xam mooy Serigne Fallou Ndiaye gindi askan waa dëkk bi yëpp tàggoo nañu coono fan la ñuy jële soow mu baax ndax Cheikh Sow indi na solution bi Cheikh Sow ñëpp naan ko neex soow Touba gi yëpp ak li ko wër moom la ñuy wër Cheikh Sow neex soow soowam baax na set na te neex na boo amee xew soxla ci soow ak lu mu bëri bëri quantité boo ci soxla boo ñëwee ñu jaay la Serigne en tant que doomi dëkk bi gis euh, ñi féetewoo dëkk bi comme commune bi laa bëgg a wax. Mhm. jël ay ndimbal yu am solo di ko jagleel ñooñu dëkk bi ndax ndimbal yooyu egg nañ seen gox bi ak neen ko defee ndax gis ngeen noonu lañ ko war a defee waa wala. waaw chaque jour damay wax ne rek xam nga doomu aadama moom lim gis bay def. Mhm. moo ko xam. Mhm. Euh, intention bi ñu am ba def ko rafet na. waaye defin wi moom xam naa ne lu ci baree bari des na ndax fu mel ne tey. Euh, man gox bi ma dëkk. dégguma nit ne ceeb agsi na fi. gisuñu chef de quartier dégguñu chef de quartier. Mhm. gisuñu it chef de village dégguñu chef de village kon duma ma mën ne eh, agsi na fi. Mhm. du ko mën a gun a wax. ko gisuma ko dégguma ko bi ma ko laajtee it gisuma ko. Mhm. te jàpp naa ne ci eh, ñin dëkk fii ci gox bi te itteewoo ko it Touba la ñu bokk. ci commune bi la ñu bokk kon waruñuy seet rek ne. diw dafa dëkk ci euh, banlieue bu Touba wala diw dafa nañu xam nga biir dëkk bi am na fi ñoo xamante ni. ñoo gën a sonn sax ñi ci banlieue ñoo gën a sonn téeméer yoon ñi nekk ci euh, banlieue bi ak ak yeneen ak yeneen. Mhm. Euh, lenn rek lañ ëpp ëppalee ñi ne ci banlieue bi muy yoon wu ñuy jaar ak jege marché. Mhm. waaye à part loolu lu ci baree bari ñoo ko bokk yam kon. Mhm. nañ leen di bàyyi xel. nañ leen di bàyyi xel bu baax a baax commune bi nag li mu def wax du yàlla man su ma ko doon xelal. ni mu ko defee du ma ko defee noonu. ndax euh, wax dëgg yàlla millions yu mu génnee bari na euh, di ko jënde ak ceeb te jàpp naa ne tey euh, am na beneen yoon boo xamante ne bu ko fa jaaree woon coow li dana wàññeeku muy tey mënoon naa fexe ba am répertoire ñi nga xamante ni si ittewoon nañ fi ndimbal ndax ab dëkk lañ wax ndegam lu toll ne état lu toll ne tey état dafay répéter ci ci réew mi. Mhm. xam ñi nga xamante ni itteewoon nañ dimbal mu fexe ba di leen dimbali. Mhm. kon moom dëkk bi waroon naa mën a am répertoire boo xamante ne dana xam ñi nga xamante ne ñoo itteewoon dimbal. Mhm. ba tey bu ndimbal jotee rek kenn ku ci nekk mën ngaa xool sa téléphone. ndax est-ce que loolu responsabilité bu ñu ko defee nii maanaam dimbalu askan ki ko ki yittewoo est-ce que mënu koo bàyyee ki ko yittewoo rek. waaw euh, buñ ko maanaam d'accord naa ne ki ko itteewul mën na koo bàyyee. waaye ginnaaw ñoom dañuy def te li ñuy def ñëpp ñoo ci bokk yam hmm. ñuy tànn ñi nga xamante ni si ñoo gën a néew doole hmm. ñoom ñi nga xamante ne ñooy def ñoo war a seetantal hmm. li ñuy def mooy leen xelal dama naan leen du ngeen jënd ceeb waaye nag béy wéy na mbuus li olof di wax ah, coow mënu leen ci topp li moom moom moom kenn warantewul ne dana am te dégg nañ ko déggati ko ban façon coow nga jàpp ni mën na leen ci ñoom ci seen biir euh, mën nañoo bañ a coow parce que jàpp naa ne lañ doon def conseil yi nga xamante ne ñoo seq commune bi ak maire bi. Hmm. waxtaan nañ ci. waaye bu fekkee wax na ne ñoom yëguñu yenn yi. waaw yenn conseil yi duñ mën a yëg yenn yi parce que dañoo toll ci jamonoy coronavirus. Hmm. bu fekkee dañu ne mairie bi conseil yëpp ñu fee daje. Hmm. nangam la mën a woo maanaam responsabilité partagée la. kon ñoom ñoo ñi nga xamante ni yëguñu it wax dëgg yàlla bi fi jàllee war nañ leen a jox information yu leer ba bu ñuy wax ñoom it xam lan la ñuy wax hmm. waaye bu ñu bëggee tey euh, ñoom ñu seq liggéey bi ci seen bopp ba pare di dóorante ay yat ciolo fofu lay commencé parce que moy comme li nga wax sank rek conseil yi ñi ngi commencé ngagn mairie bi mm-hmm. ak di ngagn ñi nga xamanteni ñom lañ ko sekkal kon ñoy dóorante ay yat ginaaw ñom nak ñom ñi nga xamanteni nak ñoy ñooy di dóorante ay yat mm-hmm. ñi ñi séddale mbir mi te mbir mi wul ci ñom wala mbir mi nañ ko séentu woon gisawuñ ko est ce que gis nga ni ñi nga xamni ne am nañ ay ndombal tank ci gox bi nga xam ci si ko melni Cheikh Abdou Bali par nga ministre conseil la est ce que gis nga ni taxawaayam ci askan wi ci côté bob ndax euh, sentir nga ko yow wa xam nga euh, buñ ne Cheikh Abdou Bali ministre conseil Euh, ba xam taxawaay boobu am na ko ci waaw du ma ne amu ko ci parce que bi mbas mi commencé gis naa mu jëf jëfin joo xamante ne maanaam jëfi volontaire la pour comme la def gis naa mu taxaw ak sous-préfet am ay ndimbal yu mu ko doon yóbbul gis naa it ci biir askan wi am ñoo xamante ni it nee nañ Cheikh Abdou Bali moo leen dimbalee lii. Hmm. kon du ma mën ne defut. est-ce que loolu lépp ay nitam yu mu àndal ci politique la ko def. waaw ba tey bu ko defee ay nitam yu mu àndal politique itam nit ñooñu mu àndal politique itam nag ay citoyen lañu te ci doomu Touba lañ dëkk bu fekkee ite woon nañ ko ci itam. Hmm. wax dëgg yàlla dafa daf leen ko war a jox. ñu bari wax nañ ni moom dañ ko daan jiñ ak tëju ba nga xam ne moom confiné woon na boppam bu yàgg yàgg yàgg ngir euh, tëju gu metti est-ce que kon gisoon ni ñiy wax ni maanaam bi fi yi amee gisuñu ko ci terrain bi est-ce que nekku ni ñoo dañ am raison ci kawam waaw xam nga tey maanaam euh, li olof di wax ne tey maanaam da ngay jëf sa jëf doomu aadama yi nga bàyyi leen ñu commentaire commentaire est libre hmm. euh, bu fekkente ne moom daf daa tëju hmm. confinement ñëw mu continuer tëju hmm. loolu suwaam la soit la bu tombeek nag loolu war na non non soit bu tombeek mu war a confiner wu la waaye man jàpp ne tëju na ngir euh, manam di di di di di politique di tëju di daw nit ñi. Hmm. parce que ku koy def itam wax dëgg yàlla. bu tijji jotee di nga ya, bu tijji jotee da nga wéet. Hmm. te jàpp naa ne defu ko parce que hmm. amna na ñu muy àndal am na am na ñoo xamante ne euh, tey euh, wax dëgg yàlla boo ko ko soxla. Euh, mba bok man buma ko soxla xamna fi makoy fekk te buma demé dina ko fekk. ndax ñepp amna moy wa ma ma c'est-à-dire ban moy lolu amul moy manam nit ki téléphone ko koy woo non attends. ni ko téléphone rek nga ko mëna wo mu jël la wala du la jël nit ki dem seeti ko nga mëna def. ñu ne ba nak lool nak lool nak asandaam la lool mom mo xam nak koy defé mu defé ko ni mhm. parce que man mi ci sama bop amna sama asanda bop bo xamantene mhm. luma bëggu ta def kenn duma ko def lool message ngay lancé jëme ko ci ceeb bi rapidement ndax euh, ceeb bi dégg na ni yexina ban message ngay lancé pour sédé légui ak ñi nga xam ñooy sensibiliser pour sédé légui moy képp ko xamantene mhm. man lima japp moy képp ko xamantene état dafa wax na ñu jox la lañ la jox commission ya ñi taxawal diw dëkku feek di warna am ak di wërta am loolu wërta nek seen rôle képp koo xam ne état dafa identifier ni diw mi warna am donte dafa denc ay milliards buñ ko ko xañ parce que buñ ko ko xañee mën naa indi coow loo xamante ni si tey vraiment euh, du du kenn du xam waaye moom message ni ko bu boobaa na ko na ko bàyyeelaat ñi ko yittewoo waaw xam nga message boobu moom képp koo xamante jot nga ci hmm. jàpp naa ne boo ko itteewul da nga ko bàyyeek ña koy ña koy itteewoo. ceeb moom ñëpp ko itteewoo. waaw non non bu ma nee la tey ki mën a jënd saako juróomi saako ceeb. Mhm. ñu sédd la benn saako ceeb jàpp naa ne saako ceeb bañ la sédd. Mhm. da nga ko mën a bàyyee. Mhm. ñi nga xamante ne ñoo ko yelloo. loolu laay jàpp ne parce que coow bu ci amee. coow li mënul répercuter ci kenn. ci président de la république la jëm mhm. parce que wax dëgg yalla Touba kenn ku nek xamna lim bindo mhm. nit ki nak su fekente ne dañ lay jiiñ dem ngay soccio yeli lire mhm. lepp lu dal ci sa kaw rek ya ko tek ci sa bopp euh, muy lu am solo seigne Fall kon wa Geneviève ñi ngi lay sante bax di la gën bay la nga def tàggoo bu du tàggoo waaw ma ngi leen di sante di leen gëreum di leen ñaanal jamm di leen ñaanal itam wax yalla euh internet yi sétane ñom ñëpp ñu abonné ci seen vision parce que site la bo xamantene tay euh li olof di wax bala ngaa jay jaay da ngay laax lek tax tay itam wax deug yalla ni ñi consulter yeneen site yi nga xamantene tay ñi ngi ci am niveau national ak international doomi Touba tay bu ñu amee loo xamante ni si doomu Touba moko créer ñepp war nañ japp euh fexé mu jëm kanam ñu di ko dégg fenn fu ci nek di leen sant di leen gërëm jërëjëf jëf. mbokk yi nak di leen wëy di ñaan ngeen di abonné ci suñu site bi di senevision.com te bu leen di bës cloche bi.